son campagne bi ya wour senegal yi diriger campagne bi ba wax Ousmane Sonko yow ya, sa rat fële nga wara wuy ji suy bot suy boté cette même Mimi Touré bi lañu xagn présidence assemblée nationale kon kiko xagn présidence mo nekk ci dëgg parce que Mimi Touré buñ ko joxone présidence assemblée nationale tay jikko kaa cicatrice feebaram yi ni bipolarité bi da fay génn ci bir assemblée nationale parce que mu ngi ni yorul ben pouvoir départ moment bii nag bu fekkente ne ne ñëw na au pouvoir xam nga mu Touré ban problème la am Mimi Touré sax ñoom Ousmane Sonko dañ koo respecté wul parce que mënul woon doon seen géwél campagnal leen taxaw dëkku yi fecc ko fecc ko pare mënuñu ko sax nommé lan moo tax ñu ragal ko nommé est-ce que du waa PDS ñoo menacé euh, waa kër Sonko parce que waa PDS dañu ne fépp fu Mimi Touré nekk duñ fa nekk lan moo tax Ousmane Sonko joxu ko cër bi muy laaj wala dañ koo dig ACT wala day xaar CS e? ñoom moom buñ ko respecté woon ci première nomination yi lay bokk. parce que au moins weddi na ay waxam au moins départ na au moins guerre na mais bi mu yegg yegsee fii moom dañ ko waroon teral li ma wax ni ñoom moom ak ñoom may mën a bés ñoom ñëpp dañ doon nekk ci biti di xeex ñoom ñoo yoroon micro ñoo yoroon teesante bi ñoo yoroon xaxar bi ñoom ñoo yoroon euh, laabaan bi ci mbedd bi parce que ay wax yu ñaaw rek lañ doon wax dematuñ sax bay génnee argument mais même Mimi Touré moom problème Mimi asile la soxla beneen bi buy wax dissoudre moom la ñu war a ci seen politique. parce que ça a été wax on le connaissait une grande dame il a des comptes à rendre avec les Sénégalais parce que c'est même Mimi Touré a un fi ay rapport même Mimi Touré aussi tamit l'affaire Karim Wade daf a wax xaalis bi mu recouvrer fan la c'est pas à elle de donner des leçons surtout que yow ya dirigé woon liste Benno Bokk yakar donc dirigé Dans campagne ñu jox la 120 députés nga indi leen 80 députés. pour l'histoire yow dañ laa jox cent nga indi quatre-vingt ban tête de moo ko mës a def ci Sénégal yow dama laa jox lii nga ñëw delloo ma xaajaatam ba pare samay moroomi député dajaloo ci seen biir nga ne ñun ñooy tànnal suñu bopp dañuy xool ku ñu gënal ba pare say moroom yow ni la sempet teg na le mooy ñi nga àndal wóolu wuñu la président Macky Sall bu daan xex rek la lay soxla indi la nga xex après mu tegaat la fële kon yow kat nga sétatal sa bop moi j'ai l'impression ku wara xolat bopam la. te bari na ci ay ancien premier ministre nak buñu ñu ci poste yi pouvoir wala ya ñu jël muy dof wala buñu ñu ci poste premier ministre dañuy départ foog ñu xol d'abord encadrer ko ñun au Sénégal puissance premier ministre lan la parce que l'histoire de Dia xëccio bi rapport de force bi dëgërante bi bi mu paré daf ko regretté danañ yu bari suma ma duma ko def. parce que dañuy wax naan courage courage mais erreur erreur moo yóbbu Dia fi mu yegg beaucoup de Diays tàccu mais jaar am na loom bu ko defoon ñu digal ko ko du yegg si fii boobu amoon na puissance sa Seck amoon na puissance bi mu nekk premier ministre ba kenn mënu ko téye bi Macky Sall mii di nekk premier ministre même chose bi Mimi Touré mii di départ di nekk premier ministre kenn mënu ko téye Ousmane Sonko ngi nii kenn xamul fi mu nekk nii mënul sax moom contrôler boppam man Ousmane Sonko moo am problème ak Ousmane Sonko moom mënul cerner Ousmane Sonko. kon lan mooy problème bi ci poste premier ministre boo si jógee ak boo fa nekkee il faut que ñu poser ce débat pour xool comment on doit encadrer ce poste parce que ku fa jaar dootoo normal ku si Abdou Mbaye daal laa ci gis mu génn ci jaar ci amul benn kii te bi mu fay yegg si moom dafa ñëw dindi tout ce qui était nangam nangam ak ay truc Abdou daal laa gis dugg na fa. Amadou Ba jaar fa Amadou Ba waaw Amadou Ba jaar na fa génn tu y a problème Abdou mbay Amadou Ba ak Mamadou Lamine Loum. mais ñooñu ak Habib Thiam mais après sous le règne de Wade ba léegi poste premier ministre yi ñi ñu koy mës di jox ñëpp koo fa jëlee rek gis nga Macky Sall ba ñu ko fa jëlee woon yóbbu ko président assemblée nationale si le, si le nekk di di dugg ci ay coups bas ba bëgg woo Karim Wade parce que dootu ko mën di gérer doo comprendre lan moo leen dal Mimi Touré moom daf ci wane cas bu garaaw. Hadjibou Soumaré récemment invité on nañ ko ci xaw mu wax wax il faut que ñu xolat d'accord avec le phénomène de Mimi Touré il faut que ñu étudier wat na ci sociologue et psychologue yi xol aussi tamit. Bien spécialiste en management. <laughs> nous sommes toujours avec Abou Diallo analyste politique ci l'émission émission espace public bu euh, y war nañu mëna a dugg ci 100 euh, jours de euh, règne yi nga le régime en place def nako ci pouvoir bi. ak li nga xamante ne xëy na peut-être moo si euh, jàngatu euh, Abou Diallo mm-hmm. ci euh, acte yi nga xam ne jot nañ ko opposé régime bi nga xamante ne ni ñoom ñoo fi nekk actuellement non régime bi fi ne man moom kan compté lu ma leen 100 jours parce que man gëwuma état de grâce du loi du règlement du lenn mm-hmm. parce que ay nit ñoo yeewu rek imposé ko man pour man dès l'instant qu'on a la signature mm-hmm. jour bu ñu ko amee jour boobu la la nit ñi war a opposé wu dès l'instant que parce que trois mois est-ce que dañ ko gratuitement dañ ko trois mois ils ont reçu tous les avantages ñu ngi regardé le corps ñu ngi tëdd ci hôtel ñu ngi trois mois ils changé nañ ci ay fii nit nga ne trois mois dama koy ci ma lay denk ba dama lay trois mois. mais peut-être euh, dene la bo xamante ni dafa wara daj au Sénégal coutume la euh, coutume bu baaxul la coutume bi <laughs> ah, coutume mais bii nag doon na élégance nañ ko dindi parce que xam nga lu tax ba dindi xam nga tey am na ñu yu bari tey bu fi presse bi nekkul woon tey si y avait pas Bougane si y avait pas RT s'il y avait pas Saar Sénégal Allemagne s'il y mhm. pas les gens entre les deux mois yi mais ci biir trois mois yi si la Ousmane Sonko génn ne appel candidature dootu ko fi defati te te te wax waxet la te pourtant loolu moo taxoon ñu song Macky Sall ci bii mu ne mandat am da koy wàccee as man loolu moo wàccee man depuis ñu né appel candidature parce que sama conscience moma ma mayul Macky Sall ñu won dara dafa né rek mandat bi set suma ma ya dina ko def 5. mu ñëw nañu conseil bi lay déglu ñu né ko reculer nga wax waxé pourtant amul ben problème wàññi won na prix ñu génn wotel ko gor sa wax ja gor sa wax ja bobu lañu andé ak mom tay ba yex fi ba opposition fi parce que dafa respecté woon karam ki ñëw avec les assises appel candidature fonction publique dañ koy def premier jour muy ba yobu ko conseil des ministres ñëw retirer ko du ci bir 100 jours ci biir 100 jours yi la ñu bah ba ju ba ba ministre de la justice si boppam ñu ne la moom moo woote ne ko nii si biir 100 jours yi ñaari journaliste ci biir jours yi lañ jéem toroxal un général émérite ci biir cent jours yooyu si lañ dem grand théâtre di menacer journalistes yi si biir jours yooyu pour journal pour presse bi fiscalité ci ñi les duñ léegi day passé cent jours ñi lay am problème yooyu am problème nga part nga génn cent jours nga ne da ngay génn pour défendre leen. Mhm. boobaa lan lay nduro. mais ci biir cent jours aussi lañ wàññi dund gi. Ah, non si biir non si biir cent jours yi wàññi dund amul. ils n'ont rien diminué parce que bi ñu ko defee waxee ba pare lan moo ci xew mooy <laughs> le technicien du ministère du commerce moo ñëw ne poids pain bi temps lañ jël wàññi ci temps. lan moo wàññeeku ceeb bi ñuy jaay fi Sénégal lu ci wàññeeku. non amul amul lu ñu lu ñu lu ñu effet te loolu sax benn moom amoon benn moment da wax ma ne leen dañu amul courage rek affronter les sénégalais parce que benn moment ñoom toog nañu ne guerre Ukraine bi toog nañu ne condition yi ñu fi nekk toog nañu ne kii mais loolu boobu jamono ya muy am ñoom dañu waxoon ni Macky Sall cuune la. Mm-hmm. Mali moo gën a yomb produit fii moo gën a yomb produit ñoom ñoo ko waxoon ñoo ne bu ñu yegsee ñii mënuñu dara bu ñu yegsee ñun dinañu régler lépp que dinañ supprimer agence yi dinañ supprimer économie 53 milliards yi ñu économiser nee nañu ci wàññi bi. waaw lan lañ fonds politique premier premier ministre lan président lan gouvernement bi carburant. mais ci 100 jours aussi nous ci lañ fi 1000 euh, milliards 1150 milliards euh, sur liquidité pour certains. Ah non mais xam xam nga déjà si 100 milliards on avons delloo si waat eurobond ne woon xam nga si biir 100 milliards a biir 100 jours yi dañu confirmer ci 100 jours yi lañ un pas projet.

mais ci biir sans jours yooyu dem nañ ba FMI ñoom ñu ne amuñu document référentiel donc li ñu ñi génnoon ci mbedd yi li ñu ñi rayante woon te on nous avait dit que ils avaient mille mille experts xaw ma mille cadres truc livre solution mhm. mais arrivé bi ñu demee fële document bi ñu yor nii actuellement c'est la continuité te loolu aussi c'est normal parce que un bon plan bu baaxee da ngay ñëw nga appliquer ko loolu yëpp ci biir sans jours yi la ñoom ci biir sans jours yi orientation yi nga xam ne waroon na cee mën a génn mooy bu ñu demoon politique général ñu ne xëy na lii lañ doon liggéey ci biir 100 jours yi. Mhm. mais yow fi may wax ak yow nii nii lan mooy programme bi. non moom euh, yónnee na bataaxal jëmale ko ci euh, conseil départementaux yi ministres yi maires yi ñii mu laaj leen. Euh, plan communal de développement ñii plan départemental. ne nañ ko indil ay références. su ko defee ah. lépp lay daje muy mbébétu Sénégal mu mun koo yóbbu loolu rek xanaa jàlloo si. non xam nga xam nga ñaar moom mais xam nga moom dafa ne woon ñoom pare nañu. bokkul de xam nga xam nga su waxoon loolu su doon lu ñu wax la. projet bi waaw waaw dañu ne woon projet bi jar na bakken ba ñaata bakken tëdd ci ba ñu paree ñu ne ñu dañ koy bind. bi ñu demee mi xaw ma banque mondiale dañu ne paree gu ñu donc dañuy def continuité parce que Abdoulaye ñëw na fi plan xaw ma stratégie nationale développement la jël. bële bi bi kii defoon ñoom Ibrahima Wade aussi bi ñoom Idriss Seck ñii boobu la ñu reprendre. mais moom bi ñu yegsee bi Macky Sall yegsee yoonu yokkute la indi après mu teg ci PUDC parce que dane il faut que mu gaaw def tour du Sénégal après ñoom ñu dem ba ci biir ñu ne yoonu yokkute doxul plan Sénégal émergent mais plan Sénégal émergent a été critiqué pendant tous les douze ans mhm. par ñoom ñi nga xam ne ñoo doon dem ci mbedd bi ñoom ñoo ne woon dette bi yàq la alors que on a terre baa ngi noonu suñu leen toppoon xëy na teer bi yàqu parce que combien de tentatives lañu lañu lañu échoué pour bu noonu bloqué terre BRT bii tey impact social bi mu def te te bus yëpp dawagul mais lan moo bloqué woon BRT donc dans la logique mooy bu BRT teeloon daw. léegi nag yooyu noonu yëpp la ci biir 100 jours yooyu si la si si la si si la waroon ñëw nañu parce que ñoom dañoo génnoon defar seen document defar ko foofu wane seen i cadre toog xawma ban hôtel ñoom ñëpp ne lii mooy pare nañu ñoom dañuy yegg si rek au travail. donc ci biir 100 jours il de confiance parce que yow li nga tax li nga wax nit ñi bañu li nga point ko wax sénégalais ñu sénégalais au même type même niveau même égalité da nga tous les compétences tous les cadres bu ñu yexé poste stratégique yépp Tu ko jël appel candidature meeting amul mais ci biir 100 jours yoy bi ñu def c'est partages partage gâteau C'est de les 100 sans jury là nous bloquer RTS si sans jury mais sans jury il le débat économique pendant les 100 jours j'aimerais à ce que gars posent même j'aimerais aussi à ce que euh, les gars comme le pouvoir sortant euh, Moussa Faba, Moussa quelqu'un qui a pour man ministre ministre des finances continuité là. parce que koo xam élément wu Moustapha Ba la woon yaa doon directeur planification budget dara changé wul léegi pour man Moustapha bi mu def yëpp ci ministère bi directeur bi mu jógee yéeg ba keroog ministère Moustapha Ba war na bind livre pour ni ko Mamadou Lamine lu mu defoon Amadou Ba war na bind livre lim fi mu bàyyi ay projet am pour que ñu topp parce que Mamadou Lamine Loum dafa fekk gaa yi ñu ñëw naan ay dëkk bi lii ak lii mu ñëw génne benn livre blanc ne leen bàyyi nañ fi deux cent cinquante milliards. tel poste tel li négocier nañu li négocier nañu li tout est fin prêt donc wad bi mi do yeeg fofu la doon dem nan bu len ma ñaanal xaliss na jeunes yi parce que bo pendant 20 ans ñu ngi won ci ajustement ñu ngi doon liggéey plan Sakho lu mi jaar fi Mouhamed El moussafa Diagne ministère finance jaar fi après Mamadou Lamine Loum bi mu yégué mais si la ñu def ba dem nak ba ñu accepter len légui ba ñepp ñu nekk ci point vert boobu la wad ñëw fekk fi ay permis PAMU programme mobilité urbaine fekk fi programme yu bari waaw ah, léegi ñii bu ñuy fi yegsee PSE bi dañ ko évaluer ku nouvelle responsabilité Ils muy wax la fête. parce que nekkoon le ministre finance bu fam fini mais l'actuel ministre de l'économie et des finances il Ba sait gënu ko yàgg si si si état ou finance au Sénégal ba élément moo nekk ministre. Uh-huh. donc pour moi, sans jury fa lañ leen di xaar Boubacar Camara en tant qu'économiste, uh-huh. en tant que quelqu'un qui avait dit que euro bon il a bon ci leb donc honnêteté mooy bu fekkee amaat na ci 100 jours yi mu ñëw dégg wan état bi nii mais te bor bi am na lu hmm. ñoom lu ñu bind ne société intermédiaire bi ko jël fi ñu jaar ba am bor bi. xaw ma lan mais Abdou mbay posé na débat boobu. ma c'est ça que j'entends j'entends si lay xaar mais sans jury yi boko évaluer si biir sans jury japp nañ Imam Ndaw pour neexal ñi gëmul tarixa japp nañu ba Diakhaté ci liberté d'expression. si biir censure yi wax nañu ni procureur bi léegi ministre de la justice bi moom la woo laaj ko ndax xalaata

ci biir 100 jours yi lañ ko def. Mhm. bi ñu ko defee ba pare lan la jur. mooy si la ñu jur nii nekkete suñu premier ministre ak suñu président de la république amuñu gouvernement. loolu la ñu danger bi ñoo yëg ci biir 100 jours yi mooy lu catastrophe mooy nekkete suñu man un ambulant moo tax les ambulants ñëpp a ngi ci ressources humaines qualitatives a ngi seen biir. ci bir jakarta yi ak ambulance yi ay nit yu am xam-xam dama gis ko brandir document mhm. xam bu doon kenn la bu doon sar la wala ya, wala keneen ñu ne la non manipulati truc waji mo ne arrêté ba ngi nii bii la ministre si ko nañu jël leen seeni matuwaay nangam ak nangam muy mhm. boobu lañu premier ministre ñëw taxaw ne yëgu mhm. premier ministre moo taxaw ne euh, man awma ku may rendre compte duma rendre compte presse bi duma rendre compte lan amal affaire askan yi mais kérok moo taxaw ko la baan daan bi ko président laajee li xew foo nu mu demee journaliste yi laa ko di yëgee kon donc journaliste yee ko yëgal kon xam na ni kon journaliste yooyu am na mu ngi déglu journaliste yi. kon kon rendrewul kon journaliste nekk te journaliste yi ñoo koy yëgal. moom mi yor état yor renseignement généraux di toog conseil de sécurité c'est ça si biir 100 jours yi la nit ñi xaw la ñu tiit xam nga luy ministre de l'intérieur nga xam ak digganteem ak ministère nga xam ni kon moom rek la téléphone am dul moom rek mooy am accès di wax ak président mais premier ministre taxaw. mais yëgu président de la République ne ko yëgul li xew kon jomaay ngay nelaw kon jomaay nañ koy yeeyi non parce que premier ministre moo ñu wax. <laughs> ñu def délégation dañ yeeyi ko. non parce que xam nga premier ministre ne ñu président moo ne ko li xew nii lii lan la. Mm. te ministre de l'intérieur xanaa sañu jël décision te du laaj premier ministre te duñ ko waxtaanee conseil des ministres te duñ ko waxtaanee conseil de sécurité parce que tamit yooyu mën na ay désencombrement mën na am. du aspect sécuritaire parce que xam nga dañu nekk si dëkk boom pour nga mën def yenn liggéey ak yooyu yëpp am na ci sécurité routière sécurité lépp daf ci am infiltration ci marché yeeg yooyu yooyu mën nañ leen ko nangul mais loolu waxtaan daf ci am dafay am ay réunion préalable lu yëkkati gouverneur yëkkati préfet yëkkati toute l'administration territoriale mais loolu le chef